léegi pare eh, nga. yow laay dégg. eh Latif foo jëm. ma commencé réew léegi. ya? ma gën a yow mi nga xam ne xamoo àdduna. dina may mun a fi nekkee taawu xale yi ba léegi jënd dafa voyagé woon mais léegi ñëwaat na. kon nan nga ko gisee. mais non la ko gisee parce que loolu nga ma wax. kon la. mais yow Tima yow lu sa problème. bisa makolbi oh yeah son ma dund loolo sonal nga mami bisa makolbi oh oh li nga ma digoon Do li nga ma one time some real love mujj na ci ay lebon lepo bëgg na Pero un rayo mágico va duma jooy amul loo fii def wala nga wax ba ma jooy jaraloo ma ko sax parce que samay rongoñ dafa jeex yow hélas dan bëgg man ma wax sama samay ba pare sa yaay wax ak ay nitam ba pare li ma gën a métti nag sama yaay ak yaay kenn ku nekk tënk nga say at sa kàddu jox ko sa morom. suñu projet de mariage ñëpp di ko waxtaanee nga jékki-jékki rek soppee ko ba mel ni kàkkatar xàmmeetuma la mënatumaa xam yow la kan xam nga lu ma bëgg nga wax ma lu may dégg ci sama nopp yi wala nga wax ma lu ma mën a dégg lii dégguma ko te gëwuma ko gis nga sëy day am duma la neexal te duma la naxtaan sëy bi day am force mënoo ci dara yow lan la lan nga bëgg man lan laa la def. ay eh, xol xamul lu ma bëgg gis nga instant bi nekkuma ci ay projet de mariage. takkuma jabar tey takkuma jabar ëllëg est-ce que yaa may dégg dama bëgg wax ji mu leer ci yow marié wu ma ah, te marié wu ma suba aussi. yow da wax lu la neex gis nga lii boo ko waxee da toog fii rek di wax lu la neex mais waxoo lu am gis nga sëy bi day am par A ou par B li nga bëgg nag man xam naa ko te duma ko de parce que duma may samay normal luñ ma reetaanee hélas yow ma bàyyi ñëpp bàyyi lépp jàpp ma kenn ku dul yow ah tey nga bëgg a taxaw yow man li ma dund lépp. loolu xalaatuma ko sama bakkan bi laa ci teg dee moo ma ko gënal wute ko mais sëy bi day am waaye El Hadj doomu wuyu yow El Hadj El yaram toujours bi may ñëw sa nekk di wax ak yow El Hadj nga mel te man defuma la dara man nga lii nii nii nii nii dunduñu ko man ak yow parce que libaluma la ko dama laa bëgg rek te yàlla tax te yow sax war ngaa xam loolu toppee ma la dara lu ma am bokk ko ak yow ñépp bàyyi ma kenn wax nanguutul sax wax jëmale ko ci man parce que loo wax ñu ne hélas temps temps am yëpp yow laa ko passé tey amul loo def nga bëgg maa war est ce que lépp góor mooy daw ci sa yaram. hélas bu nekkee gor nga soo ma waree wala nga trahir ma billaay di nga ko gis te loolu yëpp bëgguma ñu egg ci. mu la ko baalal ma lu tax nga def ni xam nga li daf ma metti jël sama xol di ko. borom léegi di sëñ lébu di borom jinne yi bébé jee ak bintu sëñ lébu di borom jinne yi bébé jee ak bintu borom jinne yi di bàyyi bébé ji ak bind cët yëpp yaa may dund loola sonal nga mami sapi sama xol bi oh, sina nati dama doon def erreur dama dama doon genn ni ci tak moy seet si woon non non sama ben copine mo dekk fi ci ginnaw moom laay seeti. ah bi dafa tàng kaay sax ma jox la nga am loo naan lu sedd soo ko continuer. non grave dañoo joxante woon rendez ba pare. ñëwul ba pare ça fera l'occasion sax comme ça ñu mën waxtaan. yëf yee ngi gis nga lii bés bu ko takkee ma ne la waxuma la El Hadj de moom moo ma yab waaye dina yebu ñu ma. ginne yi ñooy ubbil seen bopp bunt bi ne njëmbat daal di daw waaw waaw daal di furlokan ici ma bu soobee borom bi na sa xel dal du meewu gaynde laa waxoon nga jënd déedéet meew gëlëm nga ma waxoon ndeysaan rab ya wuy si wuy si ak ay njabootam ma sox xel dal ma ni bu yeboo nga jàpp ni El Hadj ndaw si te suñuy kàddu fee ñu ko dëgmaloon danañ ko fa wéyal te dana fa fës. bàyyee ko. balaa ngay fel sa gémmuñu sàmm da ngay xam la la walis man da xam lan la ñuy waxtaane ah xamoo lu waxtaane te temps gis naa ni yaa ngi souffrir. finance yaa ngi souffrir lu metti parce que fi nga teg sa bët moom tegul bëtam ci yow li ngay santir moom sentiru la lii lépp mën na ñàkk final lii mën na ñàkk man maa fi pour yow li may sàkku ci yow jox ma ko jox ma li may sàkku ci yow. xam nga lan laa bëgg gis nga El mii nga def ci moom li nga daan def ci ñeneen El min sa loxo denk na la lo ci mën ak lo xam nang ko ci def yaa da ngi noonu sa man nak ma ngi genn dem te ñëw ndax dégg nga ma eh. waxal ak man balaa nga wax ak jinne yi ba ba wax ma ngi lay deg ñoom dañ may wat rek ma ngi lay deg ñëwal. wa legi man ma ngi genn dem te ñëw dimbali ma sa jar la. maa ngi mel ko tiim ekran bala men wallaay ya gi dem te bo ñewé mo del sé mo gëna neex kon jeex na man am naa si yow yaaka yaay sama ram ma ngi dem te ñëw ci yalla yalla man xoolal comme naaj bi dafa tang te heure bi ñu joxate ba rendez dafa jot ah. bàyyi ma dem après na la wo tik timo sina wala bàyyi man dina la wo dégg man dina la wo ndax néeg yi day mel ni dafa njaboote karakaay man xam naa ni day nef ndax daa bëgg góor kaafetal moom waxaalewuma ko maa ngi ci erreur de kii jënduloo naa ko meew bi te bu ñëwee fii te fekk ko tane danañu ñom maam lañ fi bàyyi woon jug na fi de ah. la ma meew bi sax meew gilem la dafa xat ak ki ci rek meew rek do mën a àndal xam naa damay bàyyi guddi rek dem kër séeréer di jënd fa cereeg daal hmm. ah kii rek parce que ginné yi tamit bu féké jangoo yi say njabot rek lay sonal

bébé man dama ragal si dama ragal dama ragal bis ñëw maak yow ñu bayante feebar tu dal ma duma lek duma naan nelaw sax duma ko man bayante bébé àdduna lo gis ñaar la muy banex wala naqar bés dina ñëw mën a yow dinañ bayante neex wala mu naqari waaye na nga waajal sa bopp ba bis bu ñëwee bañ na ma du yoon Iya, eh, cuk nggak ini lorek. Wah, nelaw yi ma doon nelaw bëgguma woon sax mu jeex. mais fan nga gisee rek kuy nelaw te bëggul yow booy maa ngi woon ci beneen àdduna ci beneen dund gis nga soxna si mi may dund loo xamante ni bu commencé du ma bëgg sax mu jeex ndax tellement dafa nekk lu may neex te xoolal bu mu jumul xale bi suma seytaane la. <laughs> non hélas kon ni nga nobaatee yow ñëpp xam nañ ni finaa nga nopp picc yi sax moom lañuy sab yow génnal si li nga ne cher kii du final kii xaw ma lu mu doon mais en tout cas xale bi bëgg naa ko trop. mais yow arrête nga naan dama ko bëgg mais El Hadj yow lan mooy sa problème ah, ok kon lii moo tax mère bi man maa ngi doog comprendre ndax finaa woo na ma di ma tegal lii mair bi aussi pare mais yow lan mooy sa problème yow kan nga war a bëgganteel man ku ma xamul et puis yow kooku fan la dëkk. xale bi xaw ma sax fu mu dëkk en tout cas bu fekkee ni mu tudd man sama seytaane laa koy woowee. mais yow da nga dof xanaa eh, El Hadj yow wuy ma fii sa morom nekk fi de te bu ma énervé loo ndayam de yow sànq ba léegi maa ngi wax di kii ngay nekk di yéegal sa niveau nii mooy muy jël kàddu di wax yow bu la waxee wax lan ngay wax yow man nga mais yow yow you am crazy man yow da nga dof yow yaa ngi bëgg a dof dof lu nii di di yow sax lu may wax ak yow ñàkk fayda ba bëgg de tëdd sa néeg bi fii mel ni dof bu bees wuy ma eh bu ma woote léegi jeex na man ak yow bu ma woote même de waay sonal sama xol bi oh yeah yaa ma jundu loolo sonal nga maami soppi sama xol bi oh oh, oh, oh. li ma digo du li nga ma wantay sama real love Mujenaki na ci ay lebon oh